paaka bi lu mu rayee boppam xaru gis nañ ko mbokk yi ne ba biig ba démb gisuñ ko luy nuroog am njam njam jamukaay paaka wala lu koy nuru waaw cooli nag dafa bëri waaw ay mbokkam nag fi mu nekk nii nag euh, euh, yaayam daal sumeer euh, waa ji mi ngi tuddoon Ablaye Ndiaye technicien la hmm. waaw ñu déglu yaay ji ko Ablaye de sama doom bu baax la ku ma déggal la ku di ma yërmande tey fi ma fii ma nekk nii Ablaye moom ko sampal ku jënd sa yaay kër tabaxal ko dugal ko kooku du dof yëf mu amee bu am réseau la yor boo doon tëdd bu xaaj nga ñëw tas avion jox dana ko liggéey bu mu nekk rek këk bu xëy awoon naaw ventilateur noonu la kii noonu chaîne yi ngay gis ak canal yi nekk parcelle yëpp bu la neex ngeen ne ba parcelle ngeen laaj njaay réseau ngeen laaj njaay canal mu toog toog mu jékki-jékki mu ñëw mu ne ma yaay damay jaay sama réseau ma ne ko Abdoulaye da nga yor njaboot yor sa jabar ko yor juróom benn doom yor sa sa njaboot nga boo jaay sa réseau foo jëm mu ne ma yàlla baax na léegi man nekk si nekk ci nekk si nekk si nekk si nekk ci nekk mu jaay rusu bi mu ñu ne may yaay may naa mooy dama laa bëgg a tabaxal ko am yërmande si man mooy dama bëgg a tabaxal ma ne ko boo ma tax ma ne dama bëgg a tabax sa kër gi la nekk fee kër Massar waaye yow nga ne yow doo génn kër gi fii rek nga kii kon nag naa la defal fii boo boo dee nga dee fii yow bu nekkee bëgg génn ma ne ko waaw ma defal ma fii ma nekk mu toog bu am benn jour mu ne ma daal damaa bëgg toxu dem Kër Massar ma ne ko Ablaye lu tax nga toxu dem Kër Massar doo toog mu ne ma déet euh, euh, mu nekk si Almadi nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si nekk si du bis ba bu am un jour raqam day entraînement mu romb ko muy xuloog ñoom di tagg ay saaga moom mu ñëw euh, sa raq ji dem woo ko moom bu mu ko woowee mu ne ko grand naa mooy laal la mu ne xanaa dëmm yi yaakaaru ñu ko saaga ndey waxuma dara nga xam ne moo def sama xaalis mu ndaxtaane moom mu jël oto mu dem ma toog ma ma dem si moom woolu ko mu ñëw ma ne ko Ablaye man ko laal la ay Ablaye li ngay def laal la mu ne ma yaay du dara yaay boo doon liggéey liggéeyatoo li nga doon am amatoo ko ku doon million nga xëy amatoo dara nooy mel ma ne ko ma damaa bëggoon dem si mu jox ma sama xaalis ma ne ko yow loo seq ak moom mu ne yaay loolu secret la dama la ko wax waaye moom xam na man xam naa mu a ko Ablaye bàyyi yëg yàlla noo néew doole te yow dafa am doole bàyyi ko yàlla léegi mu ne waa kon maa ngi dem léegi mu génn fi dem bu mu demee dem dem dem dem dem ñu woo ma fi ñu ne ma ma nga si buntu kër gi day xeex foofu ma continuer ñëw ma dem jël taxi dem fekk ko foofu

waxtaan ak moom bu ma kii ma ne ko yow noo sant mu ne ma Jóob laa sant moom tam seen morom la si rajo nag mu lëng Ablaay mu ne ko Ablaay loo sant mu ne ko Njaay mu ne waa man Jóob laa sant waan dem leen bu vendredi bu vendredi ñëwee ngeen ñëw ma ne ko waa léegi ma lëng ak moom dem ma gis benn genre ma ne kooku ne ah kii du grand laay mu ne ah kay mu ne loo fa doon def mu ne ma dara xanaa ñu yor ma sama xaas bañ ma koo fay kooku ne ah benn xale bu góor seen morom mu ngi tudd mu ngi xale bu góor la mu ngi tudd am Mohamed léegi nag ma mu ne Mohamed kii sama yaay la Mohamed ne ah kii di suñu grand bu baax la fii la nekk fii la nekk man ko man ko dégg naa dina mu ne man saa yaay soo gisee may ñëw fii may tëdd fii du fanaan fii damaa bëgg gis ma moo tax waxtaan ak moom ñu def seet sunu lu lu lu lu lu lu ah, nekk ma jox sama xaalis ñu nekkee noonu nekkee noonu bu jour mu dem fa samedi dem fa samedi foofu la fanaan samedi fanaan fanaan fa dimanche mu xëy si ngoon ma koy woo du ko woo du ngoon si mu ñëw ni ma yaay fii ma nekk jàmm rek laa fa am ñoom ñëpp miin nan ma ñoom ñëpp xam nan ma ma ne ko man boo fanaan àll sama fii du daw Ablaye da nga yor njaboot bu fanaan àll mu ne ma yaay dafa am ni may rek su ma ko réglé su kii dana baax mu teg bu guddi mu génn dem yoonam ma daal li ma dégg rek rey deen jam na boppam deen loolu laa dégg xaw ma nag yàlla moo xam yaa rek moo xam yàlla ak yonte bi suñ Babacar rek moo xam waan yu def naa ko benn fot si côté boobu lii riir bi yëpp yàgg na depuis première confirmation feebar bi bu jour ba duñ ko ramasse bu mu jógee foofu duñ ko ramasse

lan mooy sa kii ñu toog waxtaan ñoom ñoo xam waaye bu ne buntu kër bu si buntu sax du yuuxu war na génn téye ko asako xam ne jàmbur la xamoo guddi xamoo ko bëccëg toujours mu taxaw sa buntu du yuuxu da nga war a génn waxtaan ak sa jarbaat Ablaye xam nga Ablaye am na famille dañu ne amul famille am na famille waa waa kër Gadda Ndiaye la Gadda Ndiaye mi nekk Jolof bu leel koo ni Gadda de canton moo jur papam papam Birame Ndiaye la bu turandoom aselem bii la nekkoon doon jàngale gaañu Gadda mooy papa moom papam ñoo bokk benn baay famille bu baax seen famille famille bu rëy la bu ñu waxee Ablaye kii wëngam buy dem rek dof la dofut Ablaye jàngul Ablaye jàngul de wante la bu la làkkalee français nga nga tiit su la làkkalee anglais nga tiit su la làkkalee euh, pour fii pour portugais yii nga tiit bu la làkkalee soosi nga ni soosi la juddoo lu mu la làkkal nga ni loolu la yi sax day làkkanteeg ñag yi bu ne bu parce fi mu doon nekk ngeen ne yéen ñag yi lax ko la xam ngeen Ablaye Ndiaye Ndiaye canal wax canal boo gis soo ko joxoon tey fii bu ko joxee mu a ko xam njaayeen la nag am na xatar kenn du ko yëpp du tooñ ko tooñ rek gis jikkoom moom da mu njaayeen la nag waa kër a Ndiaye la ñu dañuy bañ bu xëy sàngoo suuf maanaam du du dugg a foofu avance mu ne kon damaa bëgg dem tuxu mu ne fii dafa bëgg kii buri ma dem nekk foofu ma ne ko dee bul dem toogal fii rek ma jegale nga may xool ma lay xool waaw loolu d'accord léegi nag yéen boobaak léegi euh, maanaam coow li muy bëri bëri la doon man kay ma si dara lu ma si wax rek sama doom am naa bàkkaar la xaw ma ëllëg ma gënoon rek la na génn waxtaan nag moom Ablaye Ndiaye ñi fa nekk yëpp du bu day tug sa lim ne diw xam naa ko yaay diw xam naa ko ay moo baax diw xam naa ko yaay bi ngeen di wax dafa bon sax bonut waa ñi ñi bëkk néegi ñoo bon la may wax man lu tax ñoom duñ ma bàyyi ma dem si abal kii ñoom ñëpp ko fa miin ñoom ñëpp ko miin lañ day naan fa du xel attaay foofu ñoom ñëpp ko fa xam xaw ma lu leen seq xaw ma lu ñu seq de lu ma si wax fenn naa waaye nag moom sikk naa ko lu tax ma sikk ko rek moo na woo jarbaat raqam rek waxtaan ak raqam di woo nag buy baax la famille bu rëy la am léegi nag fi mu nekk nii da ngeen di fas yéene jël seen doom dem denc ngeen bàyyi lépp mu seen moom ñu bàyyi koog yàlla yonte sëñ Babacar dama ñàkk pa ñàggi lu ñuy wax euh, jam am na mujj jamono rango ñu baadool mooy sim cere buur moo ñu daal waaye ko ne am nga jaar jaar jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf kéem daan kon dégg na wolof. comme daan. <laughs> dégg na wolof. boo egg kan la gën a leer wolof waa Kër Song ak waa Ndioum. ah Chimère. Kana. Aba la ah ok ci loo ne. maa rek. nee nañ nee nañ canal ba canal ba nekk fële. Euh, canalu TER ba fees na. te daaw am na ku dee. Ah, te TER bi bëgg a si si daaw am na fa amoon na kenn ku fa décédé. le 24 décembre bi. Khadim Touré <laughs> nuyu naa la. Ah, <laughs> teer benn wala waxoo teer bi. alaaji feesate na. ginnaaw raay bi booy bi deewoon daaw. waaw